Mmh. Macky Sall il est hors de la scène tey ci ci ci Zahir. si Dieu le veut bien. <laughs> ci Zahir. suñu yàlla suturaalee. Uh-huh. on va vivre un moment historique. Uh-huh. le président sortant euh, va organiser l'élection e et la passation de de de de service. Uh-huh. yàlla nañu ko yàlla may ñu dund ko. ko ce sera un grand moment pour la démocratie. j'espère Amadou Ba mooy candidat de la majorité présidentielle d'abord comme nan na ngay boo doon évaluer euh, économiquement euh, Macky Sall Sénégal émergent en voie d'émergence euh, un pays PPTE régression économique wala Euh, da ngay bokk ci ñu naan wooy bilan matériel immatériel le bilan matériel il est bon euh, wooy le bilan immatériel c'est à revoir la lan mooy sa sanction man man man man xoolewu ma ko noonu noo ko xoolee euh, man nu moo ko xoolee mooy la mu bind 96 les priorités institutionnelles Macky Sall gëmul institution man wax na ma wax na la ko. waaw kañ la la ko wax. nii xam nga ci ensemble Benno Siggil Sénégal. non mais kañ la la ko wax. Benno on discutait comme ça ñu may wax ak yow. mën na la que institution yi baax na. ah non man ne ko je suis pas d'accord. tu te trompes monsieur le président. mais bi mu waxee institution yi baax na lu mu ci teg moom lan mooy lan mooy position lu mu xalaat. loolu la que comme nu mu tëddee nii le président a de pouvoir il est d'accord avec. ah euh, ok il a appliqué xale yi ñu ngi jël gaal yi di dem gëmmatuñu réew mi xam nga man